rafet rek waaye na rafet rek na rafet rek na rafet waaye na rafet rek. léegi gars yi lan laay def lan laay def. mais. yaa dirigé combat. non maa dirigé combat yi mënul ñàkk. combat combat an sama ndaw daal. non gars yi tey dañu dajale lu bari tey. an sama ndaw daal ah. mais bëgg ci yow quoi. waaw mais c'est la famille. waaw gis nga waaw gars yëpp teew nañu ah. waaw waaw kontaan naa waaw di bëggee tey nag tey bis mbégte la. waaw waaw moo tax tey. wàcce leen téléphone waay waaw waaw waaw. ndax li ma yow wala ma doomu jigéen macha allah yàlla na ko. waaw waaw waaw tey bés bi Wally Seck contentement maa ngi sant yàlla nekk njëriñam askan bi ah di sant di leen sant bu baax a baax am bëgguma woon woon xam nga bon mënumaa xew waaw mosumaa xew sama laay fii naw je préfère li may def ci ay côté ay tudd ak yooyu mu doon lu calme rek xam nga ñu def ko ni ko sama papa daan defee ah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 donc euh, gis naa public ni ñu ko apprécier mais loolu loolu moom euh, mi ngi suñu kanam. est-il possible mu ñëw. mi ngi suñu kanam.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 jërëjëf ñu ngi leen di gërëm di sant bu baax sax jërëjëf merci beaucoup